أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان alhamdulilah wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadi wal ali wa sahbihi dawi nawalil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wajcal hudakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam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 Ah, waajal weeru koor te ñetti fan yi ñu andi woon ci ñetti bind yu am solo tey ñu toll ci sunu ñeenteelu bind fas yéene andi tomb bu am solo nag muy fàttalante faratay koor ak sunnay koor ndax sëriñ Tuubaa kat nee na suñu borom araamal na ci mukallaf muy jëf dara te xamul lan la ci sariya ate kon nag képp koo xam ne ni réeree nga say farate te gëstoo ko laajoo ko alak nga sa bopp tooñ nga sa bopp te loolu de dara jëru ko moo tax ma ne xultu waxad xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fialan bi xayri ilmi okmi sharci fiihi fasad nassu dalilun qatci man kaana jahilan bi fa nafsahu abada wa faratay koor nag lu yomba jàpp ndax ñaari farata képp la sunnay koor di ñetti sunna loolu lu yomba jàpp ba tey sëriñ tubaa dañuy jàngal ci tasawdu sixaar ne siyaamunaa lahu faridataani bila ziyadatin wala nuqsaani niyatunaa wa kaffunaa am muftiraat li wajhi baaxin mutaamin bi tayibaat masnuunuhu salaasatu inda allabib taajiluna alfutuura min baxdi alxurub wasaani taaxiru na faratay koor kat ñaar la yokk amul wàññ bu njëkk ba mooy yéene ñaareel bu mooy fegu ci luy yàq koor li yàqu koor mooy lekk ak naa nag sa yeeg yu demee noonu ci bëccëgu koor yéene nag day lu am solo jaamu yàlla goo dem mooy farata bu njëkk ba ndax mbirum pas-pas la mi ngi mel ni ngay ñaw rek façon cetul wëñ nga boo xëccee lépp lay topp euh, moo tax sañ Musaa Ka day wax ne njariñ yëpp mi ngi ci pas-pas yi saa boo ñawee te façon wañ nga rek euh, la ngay ñaw lépp yàqu inna fawaida ala al aqaidi ku ñaw façon wañ nga mboros ma jagadi yéene koor nag mënees na koo defandoo benn yoon ci guddi gu njëkk bu weer wu teroo nga yéene woor weer wu lépp mënees na koo def it bis bu ne nga beral ko yéene boppam waaye loolu day sonle te mën nga koo fàtte kon li gën moom mooy nga def ko jenn yéene bu weeru teroo te yéene yéeney koor day jiitu fajar maanaam dañ koy fanaanoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ku fanaanoowul yéeney koor kat amoo koor laa siyaama liman lam yu bayit asiyaama min al-layl tey jii buñ doon séentu weer wi yow nga tëdd nelaw yëgoo ci dara xëy suba rek ñu ne la kat nit ñi kat um nañ ndax yëgoon nañ ne weer wi feeñ na biig bis boobu moom danga nga koy jàpp ni ko ñëpp jàppee doo lekk doo naan waaye nag bu koor gi jàllee da nga koy fay ndax dafa amul yéene yéene it buñ demee ci xadisu sayidna omar ibnul xataab boo xam ne nii moo ko solo yonente bi sallallahu alayhi wax ne njëriñ yëpp jëf yëpp mi ngi ci yéene jëf ju ne la nga ci yéene rek nga cay am innama al amalu binniyaati wa innama li kulli mri'in ma nawa fa man kaanat hijratuhu ila allahi fa hijratuhu ila allahi wa man kaanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imraatin yankiuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi muttafaqun alayhi jëf ju ne la ci yéene ngay am daal ne képp koo xam ne ngaa gàddaay te yàlla yonent bi rek tax laa gàddaay danga ca am yàlla ak yonent bi ku gàddaay nag ngir àdduna wala soxna soo denc la nga yéene ca gàddaay gi rek nga cay am doo ko weesu xadis bii nag boroom xam-xam yu bari saxal nañ ne ku ñuy wax eh, umu xays moo taxoon yonent bi wax ko ndax bi jullit ñuy gàddaay di dem Madina moom gàddaay yit ngir yàlla ak yonent bi waaye dafa amoon soxna su mu bëggoon a denc te soxna sa gàddaay moom it mu gàddaay topp ca Euh, bañ ko daan wax sax muhaajiru ummu xays te tey jàmm yàlla yëpp boo seetee li dox diggam ak lam jàkkaarlool ci ay coono wala la ko gën a metti mooy yéene fi ne julli sport ak i maaj ak yooyu ñoo gën a métti julli foofu waaye am na ñoo xam ne nii dox ñaar fukki kilomètre wala ñu daw ko moo leen gën a yomb ci julli ñaar rakka loolu it li ko waral mooy julli day mbirum pas-pas di mbirum roox moo tax dafa niru lu yomb te jafe. moo tax suñu borom ne ñi ragalul yàlla de julli lu diis la ci ñoom wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin jàpp li dox digganteem ak jàngu mooy yéene rek woor li dox digganteem ak grève de la faim mooy yéene kon yéene lu ama am solo la euh, sunna yee ñetti sunna la bu njëkk ba mooy teel a dog te bu mu doon njogonal lu guddee nag loo teel a teel a dog na jant ba so min baadil xurub ñaareelu sunna ba mooy yéex xadd te bu mu doon ndékki lu teel loo yéex a yéex xadd bala ñoo nodd salaata muy nodd gu mujj gi nga xam ne jullee ci topp loo yéex a xadd na nga bàyyi lekk ak naan bala ñoo nodd bala ñoo salaatu ñetteelu sunna bu mooy fekk saw làmmiñ ci wax ju amul njariñ waxuñu wax ju bon de ndax loolu moom dañ koy tere woon koor ak lu dul koor na koor waaye wax yu amul njariñ nga fekk ci saw làmmiñ téye ci sa bopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na hadis bu muy waxee ne képp koo xam ne ne mënoo bàyyi waxi mbóosóor wala nga koy jëfee jëf ay mbóosóor yu ñàkk njariñ nee na yàlla amul soxla ci sab xiif ak saw mar man lam yadax xawla suur wala amalu bi fa laysa lillaahi xaajatu min an yadaa taamahu wa sharaaba incha allahu bu ëllëgee ñëwaat sax ci Sëriñ Tuubaa ci Masaalikul Jinaan day wax ne koor kat na xam ne yemul rek ci bàyyi lekk ak naan incha allah des na ko leeral bu ëllëgee